te di leen jot lu nuyoo waa daara Dawahibul Xidma seen mbokk Serigne Mbacke Mouhamad dem ci microfone bi Serigne Mbacke Mbegere ci wàllu xarala ñu fa yéene ñëw tey fa waxtaanee ak yéen ci jataay bi waxtaan wu jëm na ci sëriñ tubaa ak ponk lislaam yi Cheikh Ahmadou Bamba ak ponk lislaam yi bu la neexee nga ne Cheikh Ahmadou Bamba ak jaamu yàlla yi. ndax jaamu yàlla yi mooy ponk lislaam yi eh, ponk lislaam yi ni ngeen ko xame mooy jën yi nga xam ne bu lislaam bu lislaam doon mbaar wala piliers yi nga xam ne bu lislaam doon doon ab bâtiment yooyu ñoo koy téye bu matee bâtiment bi dëgër bu ci benn wàññikoo ko mu doyadi lu lu piliers yi gën a wàññiku wala luñ gën a nooy bâtiment bi gën a doyadi gën a gaaw a daanu kon ponk yi mooy lislaam Sëriñ Tuubaa ak ponk yi nag ñu ngi ci bëgg feeñal ni mu fonke woon ponk lislaam yépp ponk lislaam yi juróom la ba si njëkk mooy shahaadataani muy jullit bi li koy dugal ci diina ji mooy mu nangoo wax baatu ñaari seere yi muy ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullahi da nga koy wax ba noppi yéene ko ba noppi xam li muy tekki te tënku ci loolu mooy ponk bu njëkk bi waaye ngay julli julli juróom waaye ngay woor weeru saa su la fekkee ci jamono ta nga man ko waaye ngay génne asaka saa soo amee alal ju asaka war a génn waaye soo demee ba mën a dem màkk charte yi daje ci yow nga dem fa benn yoon juróom yi mooy ponk lislaam bu ñu ne Serigne Touba ak ponk lislaam yi nag mooy naka la ko fonke woon bu dee shahadataani muy ñaari baati seere yi bind na ci lu bari loolu buñ ko doon dajal buñ ko doon beral tey waxtaanu boppam waxtaanu bu gudd gudd te lay doon waaye ku ne xam na ne ñaari baati séeré yi mooy dugal ñu ci lislaam kenn mënta dugg ci lislaam te nanguwoo ko wax yéene ko fas ko kenn it mënta dem ba am ab cir ci yàlla te dundoo shahaadataani kon dundu shahaadataani mooy nangul yàlla cëram waaye nangul yonante bi cëram te it fas ko yéenee déglu ngir li lim lay wax moom ca yàlla la jóge kon loolu moom jullit boo fi gis te ak njullitam dëggu mu am benn cir ci yàlla xamal ne nangu naa tënku ci ñaari baati seer yi kon ñeent yi ci des ñeent yi ci des ci la ci la nit ki mën a feeñ fis ci walla mu ñàkk ci màndarga bañ ba ba lislaam di doyee di waaye shahadataani moom bu fekkente ne amut nit ki kenn du ko limaale ci diine lislaam shahaadat euh, ba ca topp mooy julli julli danaa la nettali ñaari xis xissa yoo xam ne danga ci gisee fonk gu Sëñ Tuubaa fonkoon na julli fonk ko ba noppi di ko fonklu fonk na ko ndax ba muy julli ci géej gi julli ci géej gi nga dégg ñu koy wax te muy lu wér lu siiw ba mu koy def booba charia islamiya attee lislaam ak i luwaam mayoon na ko mu julli toog fa mu toog sëñ Mbàkke sëñ Tuubaa mi wàccee ci ndox mi julli ci géej gi mënoon naa julli fa toog ca bata ba ndax dees mënees naa julli ci abiyon mënees naa julli ci wota mënees naa julli ci bépp daaba boo xam ne day déplacé même bu jubluwul penk may nañ la nga jublu fa daaba ju jublu loolu am na julli yu mel noonu ci ci ci ci ci sariya gis nga ko wopp mën naa julli tëdd kon julli moom dafa mel ni yéene ji ak xam ne waxtu jot na bépp geste boo xam ne dana won ne julli nga ci jublu yàlla day mel dana la ko nangul kon sëñ Tuba julli jaral na ko wàcc ju wàcc ci ndox ci am ndox ndox mu toll ni géej nga xam ne lu nekk xajoon na ci te dégg naa ci kuma doy mu ne mas nañ koo laaj sëñ Tuba ne xanaa moom day mënees na ko boole ci karaama yi mu ne leen mukk topp sama borom dong laa ci jublu lu nekk mënoon dama caa fekk nga xam ne kon kon loolu doy na ak fonk julli jullit lu ko jëralul bakkanam rek dese naa gëm loola kon julli jaraloon na sëñ Tuubaa bakkanam ndax noonu mu def karo loo xajoon na ca noonu la ko nettalee muy fonk gum ko fonk waaye fonk gum ko fonklu fonklu gum ko fonklu yéen a ngi dégg ñuy nettali sàkket woowu ñu doon wax tanga xam ne ci njaareem la xewe woon ñam doon sàkketloo ca kër ga julli jot mu romb leen dem ci julleekaay bi daal di julli bu ñëwaat mel ni da leen a fekkoon fañ nekk mu laaj leen ndax jox ngeen waxtu buur bi ñu ne ko ah mbakki dañoo bëggoon a yeggale de ndax waxtu wi muxtaar mi des na mu ne leen na ngeen seet fi leen waxtu wi fekkoon ngeen teppi ko julli ba noppi rabaat ko tekki na leen man kenn du ma booleeg sama borom nee mu ko fonk ba mu jaral ko ba kanam noonu la ci ñàkk maslaa ci ku muy liggéeyloo bu la dee liggéeyloo bu julli jotee boo boo bàyyiwut la nga doon def julli la nga doon def bëggu ko ak lu loola mën a doon bu dee liggéey bëggu ko la nga ko jot a def ba waxtoo jotee day bëgg nga yàq ko doog a doog a defaraat leneen loolu lu wér a wér la wax ne ñii nettali ñii ñii jàngat dundu Sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ julli julli googu mu defoon ci géej gi xamoon xam nañ it euh, julli googu ñuy nettali maanaam euh, xisa boobu ñeent digganteem ak taalib borom sàkket kon bu dee ci julli ñaari nettali yooyu ñaari xista yooyu doy na fonk julli ndax bu dee ci jëmmi jullik boppam jaral na ko bakkanam bu dee ci julli ñi muy yar bu fekkente ni julli jot na nga bañ a julli di def lum lay def lool loola lum doom lum lum mën a doon moom bëggatu ko xoolatu ko yitteelatu ko kon foofu la foofu la toll woon ci julli eh, bu dee ci bu dee ci asaka wax naa la lu jëm ci ñaari baati yi wax naa la lu jëm ci julli ñaari njàngat yooyu maa nga nag ci asaka asaka dégg ngeen nettalib sëñ boobu sant ndiir jóge woon ndakaaru fekk ko njaareem am yum koo doon am yum bëggoon ko ko ci ñaanal mu dajanteek mu génne asakaam indi ko di ko ci joxaale ba mu ñëwee ba gis sëñ bi ma ne ko man de mbàkke dama laa dégg rek bëgg la ne man sax ab tiijaan laa daal di koy wax di wéy sama sëriñ mu daal di koy taggal sëriñam boobu nekk ku baax lu doon sa yitte mu ne ko man kat damaa amoon yu ma bëgg ku ma ci ñaanal ma dégg la doyloo la dajanteeg ma génne sama asaka yéene la ci indi ko bëgg la ko jox Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci asaka ji nekk waaw asaka ji moom charia islaam yi moo nanguwut ngay génnee asaka fii di ko yóbbu feneen bu fekkee jaay yee xewu fa bu fekkee loruwuñu mu teg mu tegal ko ci ne ko te fii nag loruwuñu kon asaka ji moom danga koy delloo ndakaaru dem ca boroom xam-xam yi laaj leen ku ko fa yayoo buñ la ko waxee nga dem jox ko ñooña lu doon sa mu daal di koy limal yi nga xam ne moo nekkoon yitteem waaye bi ma ci gën a yitteel te tax te tax may indi njàngat li mooy asaka gis nga asaka ji waxuma la moom ci boppam eh, waaye fonk fonk yàlla ak ndigalam mi weesuwut lu nekk la ca yàlla wax rek ngay bëgg doxale ko noona lu nekk la ca yàlla wax ngay bëgg doxale ko noona ku génnee asakaam ndakaaru ba njaareem ne dama la ko dama la yéene indil la ci nga ne ko nga wax ko rek la ca charia wax kon loolu fonk jaamu yàlla fonk ponk lislaam yi te it eh, fas yéene tënku ci ndigal yàlla yi weesuwut loolu yi war a rawatene nag yam ko ca tegal nag ndax kooka eh, sëñ Bendiir da ko waxoon ne ko da caa da caa booleel na ko damaa amagul doom doom ju góor ma bëggoon ku ma ko ñaanal am am naa alal maa ngi sant yàlla bu baax waaye sama alalit bu yokkoo ma jël mu nga ñaana ma bëggoon nit nga ñaana ma bu ma faatu dugg àjjana gis nga yooyu mu ko ñaanal yooyu mu yooyu mu sàkk mu ñaanal ko nii mu amee solo ku ne bëgg na ko waaye déglu li ko sëñ Tuubaa yoon wi ko sëñ Tuubaa teg nga xam ne yii yoon wi mu teg ku bëgg yi boo ca jaaree dana la yomb mu ne ko doom ju góor doom ju baax doom doom ju baax sax doom ju baax joxoon bu ma nee bàyyi ko sama gannaaw mu may ñaanal mu ne ko doom ju baax day yomb na yàlla waaye mu ne ko boo ko bëggee da ngay wut alal ju lew nga dem ci kër goo xam ne am na yarub diine nga ñaan fa soxna buñ la mayee soxna nga jël alal ju lew ja def ko ci soxna si sëy mu ne ko sëy bu mel noonu yi day néew ma doon doom dana ci am waaye doom ju si jóge mën naa barkeel mën naa barkeel seet seetal ñaar yim ko tegtal kër gu am yarub diine ak alal ju lew loolu mooy jiwu bu baax rek euh, jiwu bu baax nga suuxate ko ndox mu baax tey nemmeeku ko di ko bay ak bayaat incha allah bu ko yàlla dogalee man ngaa am ca at mooma loo xam ne euh, da nga sant da nga sant yàlla kon bu jëmee ci doom ju baax tegal na ko mbooleem asbaab yi nga xam ne mooy tax am doom ju baax na nga wut alal ju lew dem ci kër gu am diine nga wut fa soxna waaye ba mu ko ci lu jëm ci luy yokk alalam da ko ne alal de boo bëggee mu yokk boo bëggee mu yokk danga ciy dimbale wooy néew doole yi te yàlla rekk tax mu ne ko fukki yàlla na yokk yu bokkut du ca ñàkk benn bu yàlla nang gis nga dimb gis nga dimbale ku néew doole gis nga it ni mu gëmee ñaanu ku néew doole koo xam ne tumuranke na toll ci xat-xat nga jël sa alal jox ko ngir yàlla mu ñaanal la mu ne ko fukk yàlla na yokk yu yu bokkut fu ñu xëyee du ñàkk bu ci yàlla nangu nga xam ne kon wërsëg wu yokk it loolu loolu mën na koo may ni lay mën a mayee doom ju baax waaye fi sëñ bi di feeñe dëgg nag ak fi mu wéetale yàlla ak nangul gum ko nangul mooy bi mu ko waxee li mu ko tontu ci dugg àjjana da ko ne àjjana nag kër la gu am borom boo bëggee dugg fa yomb la da fexe ba juboo ak boroom bala faa dem yooyu sëñ Tuubaa tontu woon na ko menn benn benn jaamu yàlla benn mbokkum jullit mu jóge woon Ndakaaru ñëw fekk ku njaareem euh, ëndaaleel ko ci asakaam am yi mu koy ñaan la waaye boo seetee yooyu mu ko ñaan loo yépp bu ci nekk yoon wa ko sëñ Tuubaa teg mën naa maye loolu mën naa maye loolu waaye gis nga asaka ji it ni mu ni mu xereñati ci du dugal benn dërëmu asaka fu mu wërta dugg ndax booba de noon naa fekk mu soxla xaalis lool bu doon koy soxla xaalis mënoon naa fekk kër ga yéeme lool yore melokaanu daara waaye lu mën di xew asaka moom lam ko wax rek la ci a wax moom la ci ñëpp jàng kon ak fonkam julli muy benn ci ponk lislaam yi ak fonkam asaka muy benn ci ponk lislaam yi shahaadataani waaye mu des aj màkk aj màkk euh, Cheikh Ahmadou Bamba xamoon na ne benn benn ponk la ci ponk lislaam yi te ci wàllu pexe yañ ca doon demee muy am koom ak wér-gu-yaram amoon na ko ba mënoon naa dem yéene woon naa dem am na naar boo xam ne am na naar boo xam ne wér na ci histoire Sëñ Touba ne jóge na Mauritanie ba ñëw Sëñ Touba téye ko nekk damaa bëgg nga gunge ma mu bokk ci ñiy ànd ak moom dem mag nga xam ne booba waajoon na ba jekk gannaaw bi la fommaat fomm ga it am na ñu wax ne la tax mooy dafa laajoon mu mu wut mu ñaan autorisation ci tubaab yi mu ne moom loolu du ko def am loolu nag lu ñenn ñi wax la rek waaye li wóor daal mooy am na naar bu jóge Mauritanie ba fii sëñ bi boolee ko ci ñi mu waroon a àndal gannaaw bi mujj ñu dem ndax aj makka benn ci ponk lislaam yi la jullit bu ko man danga nga ko war a def te moom ah nii mu def ak julli def ko ak euh, euh, euh, asaka di ko def ak weeru koor maa ngi ciy ñëw noonu it lay def ak mbooleem ponk lislaam yi aj makka boo demee ca boo demee ca euh, xasaa itam yu baree baree bari boo demee ca saadatul muridina fi am daa xeyril mursalin ma ngi fay feeñal ma ngi fay feeñal bëgg gu bëggoon na ko dem màkk ak pas-pas bu yoroon na ko ma ngi fay wax naan xafaaru euh, lixfir zunubi wafkukan kabali bi man alayya li tarki zawr zawrahu aaru bi man yuxaatibuni fi zawri rawdatihi baytaani min xawli la min xawli man bil urfi ammaaru zur man tuxibbu wa in shattat bika ddaaru wa xaala min duunihi sahlun wa awaaru laa yamnacannaka bucdun min siyaaratihi inna almuhibba liman yahwaahu sawaaru ak yeneen yoo xam ne moo gën a leer sax ci waaye ak bëgg ma dem Makka ak nar bu mu fa naroon dem waaj gu mu waajoon ba jekk leer na lool ci ay ci maanaam ci ay mbindam kon moom kon juróomi ponk yëpp ponk bu ci nekk wane na ci wane na ci wane na ci kiim naa ki wane na ci kiimaan waaye ñëwal ci weeru koor weeru koor sëñ Mbàkke euh, fukki at ak juróom mbenn yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa nekk njëriñ nga xam ne at yooyu rek lañ man ne nekk na ko ci biiru njabootam bu guddi jotee ñu tëj benn buntu kër ñëpp na ci ñuy tëri tëri bu subaa ñu ñëwaat nga xam ne génn ko dem fen fukki at yooyu nga xam ne ci lañ ne ci la xaw a dal tuuti. donte nag la ko fa téye woon mm, ku ne xam na ko nee nañ résidence résidence surveillée la fa nekke woon te muy lu wér waaye fukki at ak juróom yooyu teg teg ay weer nee nañ. Euh, Cheikh Ahmadou Bamba mës ta jëlal at mu nekk bu weeru koor wi teroo buñ jullee gee ba noppi dana dajeek waa kër gépp ak murid yi julli si murid yi fekk si terute yi dana waxtaan ak ñoom ca jàkka ja waxtaan wu xaalu moo woo da leen di soññ ci weer wi bu waxtaan wa jeexee nag mu doog a bàyyi ñuy julli ñu naafile moom mu dem mu dem gannaaw jiitee gay ji ba noppi waaye nee nañ discours am at mu nekk ci fukki at ak juróom mësta weesu euh, weeru buur bi ñëwati weeru buur bi ñëwati na képp koo xam ne mën ngaa boole liggéey bi ñu la sant ci kër gi ak weer wi fa lillaahi hamdu sukuru nuurun ala nuurin dégg nga képp koo xam ne liggéey bi bi ñu la sas ci kër gi mën nga ko boole woor weer wi nee na loolu baax na leer la bu fekk si leer da teg ne waaye nag koo xam ne mënoo boole woor ak liggéey bi ci kër gi deflootuma la dara ba kere weer wi di jeex defalatuma la dara ba ker weer di jeex nga xam ne ni mu ñàkkee maslaa ci julli ñàkk ko maslaa ci lu jëm ci euh, euh, asaka noonu la ñàkke maslaa ci lu jëm ci euh, woor gis nga aj gi it bu fekkonte ne tey ni ma ko waxee woon ca sama ubbite bu du ñàkk sax bis ma def ko maanaam citation yi nga xam ne Sëñ Tuubaa wax na ko ci mbirum aj feeñal gu xam feeñal gu daana ko feeñal ci ay waxam maanaam bëgg gum bëgg a dem siyaare ji barab ya te it firnde ji mooy bi mu fiy jóge yi mu dénkaane woon te muy yu néew a néew te yépp jëm ci diine aji màkk ca la bokk aj googu aj gu siiw googu nga xam ne sëñ Fallu ma nga ca woon ak maam Cheikh Anta ak sëñ bu Buso aj googu Cheikh Ahmadou Bamba moo ko santaane woon maanaam ci ndénkaan yi la bokkoon xam nga ne kuy dénk kuy dénkaane ku mag lu mu dem ba di ko dénkaane ñor na ko te it bu fekkonte ne mënoon na ko amul benn gàllankoor dana ko def waaye nag la la ci ni mu ci histoire am nee nañ lam laajoon mu bind autorisation pour ñaan ko ñu may ko ca tubaab bi te moom fasul yéenee ñe fasul yéene leen ñaan dara nee nañ loola ca la gàllankooroon aj ga ca la bokk ca ca ñañ lañ ñenn ña wax waaye fi ma bëgg ñëw daal li tax jataayu tey bi mooy fonk gu sëñ Tuubaa fonkoon ponk lislaam yi ponk lislaam mooy jaamu yàlla yi gis nga julli gi loolu ma ci wax gis nga koor gi loolu ma ci wax ñàkk gum ñàkk maslaa ci weeru koor bu jotee ndénkaan yam cey dénkaane du ko waxlu te sëñ Mbàkke sëñ Tuubaa buy wax kenn du ko jottali moo koy waxal boppam ndax du bëgg dara yàqu ci kenn sax ñëmuwu ko a jottali kenn ñimuwu ko te it ñàkkutoon nag ñu ko waxal ndax kër gi ay fóore dong nga fa nekkoon ak ay ay boroomi xam-xam yoo xam ne mën nañu yilif jamono waaye lu jëm ci yàlla du ko wax loo du ko wax loo kenn lam ca war a def du ko sant kenn moo koy defal boppam. loolu moo tax julli juróom bu fi nekkee mooy jiite bu weeru koor teroo ndinkaan la muy def ngir ñaax ci taalibe yi moo koy def te it day dégager ay responsabilités ku mën a boole liggéeyu kër gi ak ak weer wi baax na ku ko mënta bool nag deflootuma la dara ba ker weer wi di jeex noonu mu defoon ak borom sàkket woowu seetal fi la waxtu yu fekkoon nga tepp li nga jotoon rabb julli rabbaat ko te cee man kenn du ma booleeg sama borom moom sëñ Tuubaa dafa jàpp ne bu waxtu julli jotee lépp loo latoo rek yaa ngay boole kookaak yàlla loolu la jàppoon te loolu it noonu la demee ndax ndigal ndigal loo fi gis nag ndigalul yàlla moom moo ko féete kaw latoo ndigalul kenn bay sàggane bay gannaawal bay doyadil ndigalul yàlla loola boole kooka yàlla la ko sëñ radiallahu taala anhu waaye yàlla fay na ko fay na ko ci naka fay na ko ci ñi mu ñi mu jàngalal boppam ñépp nangu nañ lam leen jàngal te xam nañ ko te dund nañ ko nam ko dunde waxtu jot na mu xaw a yeexe ñëw am kenn ku ne ci mbooloo mi mu jàngal daal di li xam tàmbali julli hmm? ba mu ñëwee mu dugg ci sàppe yi ba noppi nekku nii rekk la bu ma yeexatee rek euh, na nga daal def nii ndax xam naa ne waxtu waxtu borom bi la te ñoom moom loolu la jàngale. li ci gën a yéeme mooy kere bam ba bañ koy jibbal boroomam bañ nekkee ci mbir ya ba waxtu julli suba jot fekk jekk nañ euh, daanaka euh, yëf yi àggoon na ca ci pandaw ji nga xam ne julli rek moo ca desoon suñ Mbàkke bu suba nga xam ne mooy yore woon mbir ya dane ba mu déggee noddu suba gi dane nañ dem julli doo ko ñëw yeggale ko noonu lañ ko bàyyee ci tër bu jekk ba ñu daal di dem julli ba ñëw doog ko euh, mottalil waajtaayam loolu loolu bokk na ci li ko yàlla fayee waaw ndax loolu am ko yombut am na waxtu yoo xam ne ànd ci ak ànd ci ak sa sago maanaam bay tal yenn yi yenn yi nga miin a def yombut waaye nag ku toll ni ak li ko waxtu jaral képp ku ku mu yar képp ku mu toqi ak bis mujj boobu waajtaaw yu mujj woowu yàlla du ko teg mukk ci loxol ñoo xam ne dañuy fàtte yàlla bay bay def seen xel ci leneen kon Sëriñ Tuubaa ak euh, euh, ponk lislaam yi Sëriñ Tuubaa ak jaamu yàlla yi mënoon naa nekk waxtaan wu yaatu waxtaan wu jot a jot a jot ndax noonu ma ko waxe bu nekk ci yooyu rek mënoon nañ caa indi ay ay ay citation ay wax yu bare bari yoo xam ne moo ko waxal boppam waaye nag xeetu kalaam ma xal wa dala yaaram moo ne wax ji gën mooy wax ji gàtt tamatale kon ngir ragal Euh, dañuy tënk foofu suñuy wax tey ñaan ci yàlla yàlla fayal nu ko te it li nga xam ne moom la nu jàngal li nga xam ne moom la nu bàyyee yàlla na nu yàlla naq ci am njàngam ba ñu tënku ca kon foofu la ñuy wàccee sunu kàddu li ñaan ci yàlla mu boolu nu dimbale wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa